Euh, dama dem États-Unis wàcc rekk teg sama valise ci hôtel bi ñu ni ma mbokk murit yi ci dëkk bi ñoo lay seet ma ni mais man maa ngi dooru ñëw ma ni nañ ñëw biñ ñëwee ñu ni ma dañu bëggoon nga julli si suñu jàkk man leen d'accord waaye maa ngi dóore ñëw gisaguma xale yi ba xam lan mooy seen programme da ngeen di dem ba ëllëg ci onze heures ngeen ñëw ëllëg ci onze heures ñu ñëw man leen na ngeen ko def altine ngeen jël si ma ma julli ak yéen timis nu waxtaan ba gee ñu julli gee ñaanante yàlla dem altine ñëw jël si ma ànd ak ñoom dem seen jàkka julli ak ñoom timis maa leen jiite commencé waxtaan ak ñoom ba gee ma jiite waat leen gee noppi ñu ñaanante yàlla ñu dem bi ñëwee ci hôtel bi nag man ne xale yéen ana seen jàkk ñuy xoole man leen yéen yéen fi ñett ci murit yi waaye ñoo am nañu pas yëpp ba fu ñu daje rek boole seen bopp def la ñuy def man leen murit yi ñëpp bokkuñu benn sëriñ man leen ñii dañoo gërëm sëriñ Moustapha Mbacké radiyallahu anhu ñii gëm sëriñ Fallou ñii sëñ Bachir ñii Gaynde Fatma ñii ñeneen ñii ñeneen man leen waaye bu taxawaay jotee dañuy ta sampu Serigne tuuba mën a dem yéen nag du ngeen ko dem da ngeen kii naan man euh, sëñ Mansour laa fi nekk kii naan man sëñ euh, euh, Cheikh Tidiane laa fi nekk kii naan man El Hadj Abdou laa fi nekk man leen te kenn ci yéen groupe yooyu mënul tabax pantere mais bu ngeen boolee seen bopp mën a tabax jàkk mën tabax jàkk mais mënu leen ko da ngeen ne ko di par parlo ku nekk naan fii laa féete fële laa féete tardé nit ñi ci àll bi ñu woote dañuy wootee leen guddi ñu daje fa waxtaan waxtaan bu am solo cent millions dal di génn man leen la lu déjà mën na nekk seen fond de caisse da ngeen commencé nag di wut place ci déwén sama dellu ba ma dellu ma ne la ay ci ngeen toll ñun ma xaalis bi de cinquante millions ci des ma ana xaalis bi ñu ne ah fii moom Sénégal yi yem gàmmu yi conférence yi takkusaan yi te bu ci ne dañ la koy yëgal te buñ la ci yëgal il faut nga yónnee fa wala nga teew fa wala nga joxe fa dara xam ne ngeen làmb seen bos mais loolu ngeen doon joxe jàkkaar